aywa fukkeel ak juróom ñaar ci ruladab aha wa xayru kulli turuxi wax na la ki gën ci jëmm yi yoon yi nag wa xayru kulli turuxi ah wa xayru kulli turuxi mboolem yoon yi ba ca gën biir ijmaa ci dëppoo tariquhu mooy yoonam wa ndax moo gën aydan ba léegi bilaa nizaayi ci lu benn xëccoo ah waaw waaw wayastahilu dana jomb nag jamuhaa boole tarixam bële bi uxraa ak beneen tarix axsir neenalal bi qaa'ilin ci aji wax bihi ci loola koo xam ne dane mën nga koo boole beneen tarixa waxam ji sànni ko ca gannaaw ñag ba fi luxuraa ak beneen munta nekk kadaba fenn moom waaja wax loola waftarata duur na alal ilaahi waral yàlla jàlla yàlla mu màgg bi inni man bàyyi maa ngi wax ak aqulu maa ngi wax ne inna dal wirda naka wirda wee day naka wirda wii mooy wirda cheikh bajal doy na ma man ku am leneen na jël man li ma am doy na ma te duma wax ci sa li nga yor dara lu ñaaw li ma am doy na ma li la li nga am na la doy l'essentiel mooy waa an ilaa rabbikal muntaha fañ jëm mooy ca yàlla fu waay jaar ba yegg ci yàlla rekk baax na hmm. walaaziman na nga taqool adkaara hadal wirdi adkaaru wirde wi na ko fonk idan gée idan booba la amri wallahi maa ngi génn ci ki yor sama bakkan soo ko defee tahdi da nga jub lil lu jëm ci yegg kon de da nga yegg fa nga jëm da dey incha allah